nañu déglu li nga xamante ne nii moom moo di al alquran nañ ko jàng comprendre ko xam lan la wax lan la digle lu nekk ci lan la tere ñu daal di koy bàyyi ñu koy amele fii ci kër gi di la maison di Coran nga xamante ne nii seen liggéey yépp moom mooy liggéeyal alquranul karim waaye tamit kazalika ñu ngi jaajëfal Bachir House nga xamante ne nii euh, wax fu dëgg yàlla ñuy jàpp ci liggéey bi lañ képp koo xamante ne nii bëgg na ak jokkoo ak ñoom rek mën na leen a woo ci numéro yooyu feeñ ci suuf lépp lu jëm ci biir kër ci wàllu meuble incha allah rabbi boo ci jokkoo ak ñoom rek di nga ci am lu la déggal incha allah mbokk yi euh, waxoon nañ leen ko bi passé tey jii dañuy ñëw ak yéen ci laaya yu am solo ajjuma ji weesu wax naa leen ni leen yàlla subhaanahu wa taala dafa baax mbaaxam moo ko yóbbe ci muy yónnee ay yonent yàlla subhanahu wa taala bëgguñu jub bëgguñu tegu ci aw yoon moo tax mu yónni ay yonentam bokk na ca nag ka ca gën a màgg ka nga xamante ne ni moo tëj buntu bu yonent yi muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal li yàlla wax wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu taaguut fa minhum man hada allah wa minhum man xaqat alayhi fa siiru fi l ard fanzuru kayfa kaana aqibatu almukadibin yàlla subhaanahu wa taala nee na jot naa yónni ay yonent xoolal baat bi ñi jàng arab xam nañ li may wax wala xadd gis ngeen laam googu dafa am lu muy firi xadd am lu muy firi allahu akbar mooy ca dëgg dëgg dëgg lay dëgg te wér ni mooy yónni na ay yonent yonent yoo xamante ne nii dañoo ñëwoon doon digal seeni xeet ngir ñu jaamu yàlla ane an ibudullaha bu taaxut ñu jaamu yàlla te moytu taaxut mbokk yi xam ngeen ne taaxut képp ku ko moytu dugg àjjana taaxut képp ku ànd ak moom safara nga jëm question bi taxaw kan mooy taaxut wala lan mooy taaxut taaxut mooy iblis taaxut mooy lépp lu lay teree jaamu yàlla rek kooku taaxut la ci yow lépp lu lay teree jaamu yàlla kooka taaxut la ci yow bu fekkee yow jigéen moo la teree yàlla ba nga bàyyi jaamu yàlla yow jigéen jooju taaxut la ci yow bu fekkee alal moo la teree jaamu yàlla alal joojee taaxut la ci yow bu fekkee xam-xam moo la teree jaamu yàlla xam-xam nga taaxut la ci yow bu fekke ak nguur mo la teree jaamu yalla nguur ga taaxut la ci yow bu fekke sax njabot ñola la jaamu yalla sax njabot goge ay taaxut lañu ci yow taaxut dal moy lepp lo xamanteni daf lay teree jaamu yalla ba nga xamanteni ni bo ca deewee tabbi safara an abudullaha jaamu yalla wajitani bu taaxut yalla subhanahu wa taala neena na di sama yonent yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bokk ci fa minhum man hada allah am na ñu déglu yonent ya daal leen topp ca la wax wa minhum man xaqat alayhi am na ñu dëgër bopp bañ duñu tuub waaw am ñu dëgër bopp bañ ñi duñu tuub ñoo xamante ne ni ñoo ko tey xam nañ ni lii leen yonent wan lii leen yonent yi wax mooy dëgg mbokk yi waxuma yonent yëpp de nañ jël misaal rek ci yonent yàlla Muusa wallahi firawna na ku dëgëroon bopp la waaye li yàlla wax rek wa jaxadu biha wastayqanatha anfusuhum yàlla nee na euh, yéefari màkka dem nañ ba xam ne Muhammad mii yonente la yàllaa ko yónni mais dañoo rëy firawna dem na ba xam ne Muusa mi yonente la mais dafa rëy parce que wax fa dëgg yàlla ku jël bant def ay miracle ci sa kanam sànni ko mu nekk jaan ñu xam ne lii jaan dëgg la nga woon jibarkat yépp ñu sànni seen i buum ak seen bant yañ yoroon jaanug yonent yàlla Muusa warax leen mu jël loxoom dugal ci poosam génn mu weex tàll di tàkk ci xar géej gi kooku yépp nanguloo ko tuubal moo tax ba mu xare géej ga fa la faatoo ak yëfa ñëw yépp nga xamante ne ni yàlla lu toll ci nëf ci ay miracle jox na ko yonent yàlla Muusa mais taxul Firawna tuub wa kazalika am na ñoo xamante ne nii da ngay waaraate ba sonn da ngay wax ba sonn waaye duñ mus a tuub duñ mus a dugg ci li nga xamante ne nii moom moo di ci diine ji da ngay sonn rek waaye duñ mus a tuub léegi nag yàlla subhaanahu wa taala comme que waa Makka la doon waxal ak yonent bi salaa salaam mu wax leen fasiiru fil ard fanzuru kayfa kaana aqibatul mukadibin su ngeen weddee ni Muhammad mii du yonent waaye jug leen ngeen dox dëkk dëkk yi ngeen tukki surtout yéefari waa Makka yéefari daanañ romb ay dëkk xam ni fii dëkk yonte ni nii yàlla subhanahu wa taala moo leen alagoon waaw daanañ romb waa dëkk yonte yàlla saalix mus nañoo romb sax fa yàlla alage woon fi nga xamante ni nii mooy yonent yàlla euh, waa kër yonent yàlla luut fañ leen alage woon ñoom xam nañ ko waaw wa innakum la tamurruuna alayhim musbihin wa bil layl afala taqilun boo demee ci sootu safat yàlla subhanahu wa taala maa ngi ko fay wax nee na waa màkka bis bu jot guddeeg bëccëg suba ak ngoon yéen a ngi romb di gis ci seen i gët bu ngeen di tukki dëkk ya alagoon te xissa yi mu fi ba léegi ngeen ko donnoo seen i maam dëkk sàngam dëkk sàngam dañ leen alagoon yàllaa leen yónnee woon yonent ñu bañ ñu alag leen waaye yéen waa màkka ma yónnee leen muhammad ngeen bañ yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg nit ki di dox ci kaw suuf di xool xam kattanu yàlla subhanahu wa taala moo tax mu jeexale ko fa fasiiru fi l ardi fanzuru kayfa kaana aqibatu lmukadibin in taxris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin yàlla subhanahu wa taala nee na yonent bi saa sallam dalal gis ngeen mbokk yi ajjuma yi weesu yépp amul ajjuma ju fi jàll lu dul ni wax nañ leen yàlla mu ngi defal yonent bi saa sallam waaw di ko xamal ni ko ah waa Makka bañal giñ la bañal am na yeneen yu jiitu woon ñu bañaloon leen in tahrisan ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil ey yow muhammad ak loo bëgg bëgg bëgg ñu jub in tahris ala hudahum baat bi in tahris mu ngi jóge ci xarasa boo koy tëgg comme ni ngay waxee daraba noonu koy waxee xarasa daraba yadribu xarasa yaxrisu bi maanaam mooy shiddatu raxba fi lxusuli ala shay nit ki bu bëggee am dara noonu mu ciy def pour am mbir loolu moo tudd alxirs ci arab dañ koy ŋàññi nag nee nañ baaxul ci wut xaalis ak lekk nga nekkoon ci na ngaa xariis waaye nag nee nañ war ngaa nekk xariis ci sàkku xam-xam ak wut lu baax ba ci xaalis sax mais ci naka nga wut bu dagan li bon mooy nga xir bëgge wut alal mais alal ji daganul wala di lekk lu xaram xirs googu lañuy bañ mais bu fekkee yow lépp looyu dugg da nga cee dugge ak xirs sàkku xam-xam wut alal ak lu mu mënti doon yàlla subhaanahu wa taala mën na la cee jàppale mbokk yi mbëggeel googu wala bëgg-bëgg boobu ànd ak nit su buy wuti dara bu ko raw moo nekkoon ci yonent bi sallallahu laa wa sallam ngir bëggoon yéefari waa Màkka mbokk yi borom xam-xam yi nee nañ aaya bi day gën a wane rafetu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla taggoon ni ko wa innaka la ala xuluqin azim xoolal waa Màkka li ñu lore yonent bi sa alayhi wa sallam ni mu bare ànd ak loolu lépp yàlla naan ko in tahrisan ala hudahum yaa ngi rey sa bopp pour ñu tuub waaye na nga xam ni fa inna allaha la yahdi man yudil yàlla du jàppale ku bëggut a baax bul firé aay bi yàlla du jubal du jubal du jubal koo xamante ne dafa réer de ku bëggut a baax yàlla daf koy seetaan yaa ngi dégg mais il faut nga nangoo góorgóorlu yaa ngi dégg pour yàlla subhanahu wa taala jàppale la fa inna allaha la yahdi man yudil wa la lahum min naasirin te bu yowmal qiyaamee buñ leen di mbugalit du ñu am kenn ku leen dimbali du ñu am kenn koo xamante ne nii moo leen di ràmm ca mbugal ma wa maa lahum min naasirin kon muhammad jarul ngay rey sa bopp yéefari màkk yi ñenn ñi say mbokk lañ ñenn ñi say baay lañ abu lahab baay la woon ci yonent bi saa salaam ma nga safara yaa ngi dégg abu taalib yaa ngi dégg moom it kazalika ma nga safara teewul ñoom ñëpp ndeysante yonent bi dafa bëggoon ñu tuub waaye yàlla subhanahu wa taala nee na ko ak loo bëgg bëgg bëgg ñu tuub ñoom bu fekkee parewuñu pour tuub du ñu tuub kon bul sonal sa bopp te bu yowmal xiyaamee ñu leen di mbugalit du am kenn ku leen di jëlal intervention segam yonent bi bu yowmal xiyaamee bu yàlla di mbugal ay mbokkam ña bañoon moom du ca mën dara sàkkamtuma kaneen ak kaneen wallahi alazim ku jaamuwul yàlla bu yowmal xiyaamee bu la yàlla di mbugal kenn du ci mën a dugg ramm yi ngeen di dégg mooy ku doon jaamu yàlla dem yowmal xiyaam am fa tuuti problème kooku mën nañ koo ramu waaye ku jaamuwul yàlla julli woo wóoroo nattoo asaka demoo màkka toog rek daal di diw laa yaakaar bu yemal xayam bi mu dugal ma àjjana loolu ku la ko gëmloo ay nax la doomu aadama day jaamu yàlla ba bu génnee àdduna nag bu demee bu fekkee kandikate amoon na rëq-rëq yoo xamante ne mën naam tuubu ko woon mën nañ ko caa ràmm mu daal di dugg fi nga xamante moom moo di àjjana kon mbokk yi comme ni ñu leen koy waxe woon ci àjjuma jële weesu newoon nañ leen dinañ ñëw yéen ci mbaaxuk yàlla ci yonent yi nga xamante ni moom la yónnee wa ala rasihim an nabi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yonent yooyu muhammad mi nga xam ne moom moo tëj buntu yonent yi ba yowmal qiyam képp ku topp ak njubam képp ku topp jàngaleem fi nga xamante ne foofu ngay tàbbi moom moo di àjjana yal nañu yàlla subhanahu taala dafa dégg ak topp jéggal ñu suñu bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ñi nekkoon ci xarala gi di jaajëfal tamit la maison du Coran bi nga xamante ne nii ñoo leen di baaxee li nga xam xamante moom moo di njàngum alquran di ko jàng di ko jàngale وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته